mawliduhu muasamu mubaarakun muhtaramu taasimuhu yanatimu ala sawi taqaddumi taasimuhu bisunnati yaquuduna liljannati bi isdiyaadul minnati li muxlisin muasimi ahousubillahi min asheytan irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa mawala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki téléspectateur ak mbokki internet yu Rafah TV noo ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi saaxibul fadila wal wasila cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak mboolem njabootu cheikhul Euh, di nuyu it suñu sëriñ Cheikh Ibrahima Khalil mu Cheikh Mouhamadou Bassir Fadal ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare di amaan mbégte bu baax baax di ndokkeelaan leen jullit ñi euh, ci weer yi nga xamee ne moo nekkoon weeru màggal ñu doon ko euh, taxawee ngir wéyal ndigalul Serigne Touba radiyallahu anhu ci sant gi nga xamee ne xéewal yi nga xamee ne suñu borom defal na ko ci sant mu ci sant boromam woo jullit ñëpp it ngir ñu sant ko ci ñaan yàlla ñu fekk ay ati at te def ko ci anam ga mu gënee ci anam ga mu gën a gërëmloo te lu ci nekk ci ay jumte mu jéggal ñu ko te yéwénal ñu ko ba beneen yoon ñu mañ ko toggoo euh, ñuy dugg weeru gàmm weeru sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, mu siiw ci téere yëpp ne ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna saa su egg seen julli ñi di ko màggal di ko taxawee ci fu nekk ci àdduna bi Rafah yi nag fas yéene di ci ànd ak yéen ci ay jataay yoo xam ne da koy amal euh, ci weeru gàmm gi ba bisub gàmm gi incha allah ci fukkeelu fan ba ñaar ci ay émission waaye di leen defal ci barab di leen demal ci barab yu wuute ci fi nga xamee ne ña ngi fay taxawe gàmm tey nag suñu émission incha allahu taala ci waajtaayu gàmm wala yoonu gàmmu ñu fas yéene ci ànd ak koo xam ne borom xam-xam la euh, di jàmbaar bokk ci ndaw ñi nga xamee ne Serigne Touba euh, euh, mu ngi leen di sagoo mu ngi leen di ndamoo ndax seenub taxawaay e, te ñuy liggéeyal yoon wi mu Cheikh Issa Gueye e, di imam wala di sëriñ <coughs> Daara di it e, jàngalekat. sëriñ Muntaxa doyloo ko yóbbu ko fële ca Masaalikul Jinaan muy doomi dëkk bi di e, doomi soxna di doomi kilifa jànge ci dëkk bi waaye ginaaw bi génn na fi dem Mauritanie yokk ab xam-xamam ñëw na fi dem na fi Maroc ginnaaw bi mu delsee yi nag ci la ko sëriñ Muntaxa doyloo ko tànn ko teg ko fee ca Masaalikul Jinaan mu fay jàngale xam-xam aka aka yaatal njàngalem sëriñ bi kon moom lañ fas yéenee àndal tey ci suñu jotaay bii di e, waajtaayu gàmm ngir bañ a rek dañ koy jox mu daal di nuyu ñi nga xam ne ñoo ngi leen di ñoo ngi koy seetaan sëñ Issa kon noo ngi lay nuyu te di la ziyaare bu baax baax di jéggulu it ak di la masta ci coono yi ak xaar bi nga xamee ne xaar nañ ko lu yàgg lool lool bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin sayidna mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi wa asna xadimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ Cheikh ñoo ngi leen di fay ab nuyoo di leen ziyaara bu baax di ziyaare bokki jullit yeeg bokki tarbiya yi ñu seetaan yëpp di jot lim nuyoo itam ci mbokki euh, télévision bi di Rafah TV di ndokkeel mbokki jullit yëpp itam ci weeru wu tedd wi nga xam ne ci lañ génn muy weeru safar di dëgg malaat weeru wu tedd wi di weeru gàmmo di ñaan suñu borom moom it ñu yegg ca guddi gu mag gu tedd googee te taxawee ca na mu ko bëggee te daje ca ngërëmam ci barke Cheikhul Khadim bisimilah. amiin yaa rabbal alamin jërëjëf Serigne Anja <clears throat> moom it euh, euh, mën nañ ne daanaka bëriwul lu ñu koy gis fii sax ci Rafah TV ci ay émission waaye ci kër gi la bokk ndax sunu sëriñ la sunu mag la di sunu roywaay ci yoon wi euh, ñu am mbégte lool di ko dalal liñ fa seen waxtaane nag mooy dundal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ngir ñu. tàbbi ci liggéey bi dañ koy defal lalitaay su ndaw ngir fàttaliku rek ndax dundal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dajaa bokk mooy fàttaliku Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci fàttaliku Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam looñ ci mën a fàttali ci jëmmam ju tedd jooju noonu ju màgg jooju ak loo xamee ne li alxuraan wax ne yàlla yàlla li yàlla wax ne ci alxuraan ne dama leen defal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy seen royukaay loo xam ne des na ko gën a mën a roywaat moom rawat na fii jamono toll jërëjëf sëñ Cheikh Yonent bi sallallahu alayhi wasallam day doy na sëkk rek ñu ne mooy yonent bi yàlla mujj yónni ci yonenteem yi te yonent yi suñ borom mas yónni xam nañ ne ñu bari lañ doon koo xam ne it mboole sunu borom bind mooy ki ci gën wa afdalul xalqi jamian ahmadu wa ma rawal kashaafu fa huwa fanadu kon loolu rek doy na ci sëkk ndax suñu borom li bind bari na lool liñ ci xam lu néew la te li réy réy réy réy li muy bari bari bari ak xeetu yu wuute yépp ñu xam malaaka yi bokk ca ak kuréel bu tedd biñ doon kilifa gu mag ca bokk Seydina Jibril alayhi salaam ak tolluwaayam ànd ak loolu lépp yonent bi alayhi salaam gën leen gën ñeneen ñu du ñoom itam gën lépp lu yàlla bind loolu doy na sëkk ci xam dayoom dayoom kawe na lool ba sunu boroom wax na ci alquran ne Euh, tagg ko di wax jikkoom wa innaka la ala xuluqin di wax ne ku yor jikko ju kawe la euh, borom xam-xam sax dañu wax ne dëgg la aaya boobu tagg na yonent bi alayhi salaatu salaam lool waaye aaya bi ku gën a tagg du boobu aaya bi ko gën a tagg mooy wa in tutii'uhu tahtadu li sun borom wax ne boo leen ko toppee da ngeen gindeeku ndax loolu mooy ma nga ca dayob gindeeku moom ndax koo xam ne yàlla assuré na ko ba yegg na foofu suñu borom ne boo leen ko toppee da ngeen gindeeku loolu moom fi la aw tagg yam loolu ndax nit mën naa am jikko ju kawe ba noppi am la nen lu des xaj na waaye boo leen ko toppee da ngeen gindeeku moom foofu la tagg mën a yam kon suñ borom tagg na ko taggu réeréerée loolu moo taxit suñ borom noonu mu ko defalee jagle googu ci wet googu yi ci jëmmam ak ci léppam suñ borom feeñal ko ci jëmm ji melokaan bi melowoo buñ demee ci jësbul xulub Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mën ko fay melal ñi nga xamee ne nit yàlla yeeg borom xam yu bari wax nañ ay melokaanam ci téere yu bare bari yu tasaaroo yu wute muy melokaan yoo xam ne lépp boo xoolee ak mat rek moo cay feeñ mooy yonent bi salaam ni mu matee ci jikko wa huwa akmalul waraa xalqan wa xulqan zahra jooju Sëñ Tuubaa di wax ni mu gën a mate ñëpp ci jikko noonu la gën a mate ñëpp itam ci ci bind jëmmam sax bindu yaramam ci wet yëpp euh, doon koo xam ne lépp luy tax ñu war a bëgg nit suñu borom da ko dajale ci moom lépp lu tax ñu war a sopp nit suñu borom da ko dajale ci moom lépp luy tax itam ñu war a topp nit war koo roy suñu borom da ko dajale ci moom ba moo waral suñu borom def ko muy suñu royuwaay bi nga xam ne garantil nañu ko waxal ñu ne ñu boo leen ko toppee da ngeen gindeeku da ngeen jub kon euh, loolu rek doy na sëkk ci wane ne ak guddeem guddi gi nga xam ne ci leen suñu borom baaxee xéewal gu mag googu nga xam ne mooy xéewal gi gën a mag ci xéewal yi yayoona bu yegsee ñu fàttali ko yayoona bu yegsee ñu dundal ko mm-hmm. macha allah jërëjëf <coughs> jërëjëf sëriñ Aïssa ci fàttali googu noonu ci wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki gën ci mbindeef yi waaye bokk na ci liñ ci gën a mën a jàngate suñu jamono jii rek mooy tàgg ko suñu boroom tàgg ko ne moom day bu ngeen ko toppee da ngeen jub loolu day tegtale ñun dañ koo war a topp ndax topp ko moo ñuy tax a mucc moo ñuy tax a raw macha allah e, ngir bañ guddal dañuy ñëw ci tomb bi nga xam ne mooy topp mooy yu ñu ko ko léegi ak guddeem dañ koo war a màggal mooy guddi yonent bi sallallahu ba tax ñu war koo màggal. Euh, guddi gi mooy guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ jamono. Euh, xam nga sax borom xam-xam yi ay wuute yu bari am na. ci ci ci ci ci tënk wala euh, tënk date bi nga xam ne ci la génn ganay àdduna ak ci weer weeg yooyu yëpp sax ay wuute am na ci wuute yu bare bare bari waaye dëgg-dëgg nag duñu soxal lool daal li ëpp solo rek mooy. xam li gën a wér te li gën a wér moom xamees na ko ndax borom xam-xam yi moom wuute daa yàgg am surtout ci histoire moom daa nangu loolu waaye borom xam-xam yi li gën a wér ci liñ saxal te mooy li ëpp ci jullit ñi li ñu doxal ba jamono ji ñu toll mooy ci weeru gàmmu la gane <laughs> xam naa bu ne weeru gàmmu sax dana xoromu waaye mooy weeru rabiul awal mooy weeru tege ci weeru diggu gàmmu wi ñu jóge muy safar mooy weer wi ñu dugg rek ci la gane àdduna mooy li gën a ci li borom xam li ëpp saxal te itam am na ay firnde itam nag loolu dolli ci itam bisub altine la gane àdduna te loolu itam euh, donte ne am na ay benn benn yu ci wuute waaye loolu mooy li gën a wér ndax yonent bi sallallahu alayhi ko saxal ci xadiisub imaam muslim boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadiis boobu nga xam ne bokk na ci yi ñuy sukkandikoo sax gàmmu doon gum doon lu diina nangu ci lu wér nga xam day mel ne day wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jëkk gàmmu ndax gàmmu firiwul lu weesu rek màggal ak fàttaliku guddi gi yonent bi alayhi salaam gane àdduna loolu lay firi rek gàmm loolu la xadis euh, boobu nga xam ne da ci da doon maanaam koor gi mu daan koor altine ak alxamis biñ ko laajee lu tax muy woor altine mu ne daaka yawmun wulidtu fiihi bis boobu ci laa gane àdduna kon loolu moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëm moo wax ne altine la gane àdduna moom nag lu mu wax amul leneen lu keneen def bañ dégg kon mooy altine la weeru gàmm la muy weeru rabiul awal Euh, di ñaareelu weer wala ñetteelu weer ci weer yi weer yi kii bi yi tënku ci weer wi tënku ci jant bi maanaam dolli ci itam guddi fukk ak ñaar la ci li gën a wér ci li borom xam mi gën a saxal guddi fukk ak ñaar la donte am na yeneen i wuute waaye loolu moom mooy li gën a wér ndax weer wi daanaka man nga ne am nañu ne ca digg njëlbeen gi la ñaareelu fan ba ñeene ñetteelu fan ñeene juróom-ñetteelu fan ñeene juróom-ñeenteel ñee wax ca mujj ga nangam waaye li gën a wér mooy guddi fukk ñaar la ci weeru rabiul awal ci euh, altine jooju ñu wax ak ci date boobu ñu wax. Mm-hmm. macha allah jërëjëf sëñ Issa mu mel ne kon li ci ay wuute di am li muy bëri bëri bi teewut am na loo xam ne moo gën a lëng te mooy. Mm-hmm. bisul altine la ci weeru rabiul awal ci guddi fukkeelu fan ba ak ñaar yi nga xam ne moo gën a siiw ñu di ko màggal fii ci senegal ak ci adduna bi yëpp donte am na ñuy màggal yeneen bis waaye màggal ci boppam baatu màggal guddi Yonent bi saa sa wala dundal ñu ko waxee it waras naa xam ci gan anam lañ ko dundal ndax léegi jamono dafa xaw a doy waar suñ ne màggal dara wala dundal dara léeg sax nit ñi dañ koy dégg dégginu feet gan nan naka lees ko war a dundale ba mu dëppoo ak noo xam ne dana gërëm loo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, jërëjëf sëñ Cheikh li nga wax lu am am solo la ndax dafa may fàttali fan yi ci gannaaw euh, émission sëñ Ahmadou Mbacké Darou Mouhty bu ma seetaan mu marqué ma ci booba dañ koy laaj ci màggal Touba boobu màggal la ñuy dëgmal màggal mu wax ci wax ju am solo màggal mbirum xol la mbirum xol la loolu maa ngi doog a dégg yaakaar naa ku ko waxee noonu wax ju ju ju a bàyyi xel la maanaam loolu mu wax ci màggal Touba moo mooy li dëggu ci gàmmu mooy li dëggu ci geneen a guddi bi wala bis bu ñu màggal bu mën a doon te yàlla tax mooy faw ñu bàyyi xel ne ndax lii nga wax da koy junj nit ñi dañoo dem ba léegi mbir yi ay feet lañ ko jàppee maanaam feet lañ ko jàppee ci niñ déggee feet la bëgg a waaw nga xam ne daal affaire bu mbaay dañ ko jàppee affaire mbooloo mu dajaloo di xal-xale di di lekk ka naan ka ka puukaree ka fàtte dëgg-dëgg li li waral mbir mi loolu dañ koy fàtte léegi gàmm moom mbirum xol la moom it loolu sëñ Ahmadu waxoon mooy li am ci gàmm moom mbirum xol la maanaam la ca jiitu mooy nga am yëg-yëg ci sa xol ci sant suñu borom ci xéwal gu mag gii mu ñu defal ci guddi gi mooy xéwalu bi yonente bi aleyhi salaatu salaam ndax xéwal gi gën a màgg ci xéwal yi mooy xéwalu lislaam waaye boo xoolee kon mooy da nga naan xéwal gi gën a màgg ci xéwal yi mooy xéwalug feeñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom la yàlla indi ci moom lislaam te moom moo mooy ki jëmmal lislaam itam yonente bi alayhi salaam mooy lislaam ci kon xéwal gi gën a màgg mooy xéwalug gane àdduna gi yonente bi alayhi salaam xéwal googu nag nga fàttaliku ko yëg ko ci saxol teewlu ko teewlu xéwal googu ñu yàlla xéwaleen te bu ko sañoon bañ ñu ko xéwaleel ak ni mu ñu ko defale nga yëg ko ci saxool teewlu ko jëf nag ay jëf yoo xam ne day firndeel cant koo ciy sant ak yëggoo ko yëg ndax loolu sëñ bi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ca Masaalikul Jinaan ba mu ñuy wax sant ci buntu buntu dafa fasul fi sukkur dafa wax lan mooy sant daa wax ne xaqiqatu sukkur la daa mën man alima shuhuduna min dil jalali niama wa amalun biha lisaanan wa janaan fi kulli ma yarda wa ruknan yustaban dëgg-dëgg sant mooy yëg ne xéewal gii yàllaa ñu ko defal kese amul keneen ku ko bokk ak moom ku dul moom kon faaw nga yëg ne lii xéewal la ba noppi ñaareel bi itam nga nga fir firndeel ko ci sa làmmiñ wax alhamdulilah ba ca desaat tam mooy nga firndeel ko ci say jëf waaye fii kulli ma boo koy def ci làmmiñ waak jëf ja doonu na yaay seet nu la neex nga koy defee waaye da koy defe ci lu yàlla gërëm loo Sëriñ Tuubaa ay waxam day day mat sëkk beneen borom xam-xam waxoon na ko ne ashukru sarful abdi ma awlaahu mawlaahu min ni'maahu fi ridaahu sant mooy jaam bi jël li ko yàlla xéewaleel jëfandikoo ko ci li ko li yàlla gërëm loolu mooy sant kon moo tax buñ ci yeggee faaw ñu xam ne nañ teewlu xéewal gu réy googu ci suñ xol ba noppi buñ noppee wax alhamdulilah ci sunu làmmiñ ci anam wane wax yi ni ñu ko mën a waxee teg ca itam defee ko firndeel ko sunuy jëf ci anam gu yàlla gërëm loo loolu nag suñ tubaab war nañu ci yoon ci jëfam xaj na daan ci ñëw mm-hmm. waaye itam ci mbindam ca yooya muy wax ca jëzbul xulóob euh, bi sukkarin aw laxam yi ak ya jiitu yëpp nag ndax loolu itam bu nit ñi jàpp ne loolu kese mooy firndeel sag yàlla ci guddi gàmmu xam nga nit ñi léegi dañoo yegg ci doomu aadama yi noonu la nit ñee toll foofu yàgg na sax nag waaye dañ cey gën a toll Sénégal ak fépp nag daanaka léegi xew-xew yeeg yëpp mbirum lu jëm ci biir ak yooyu lañ gën a jox yitte lekk ak naan ak xal-xal yi daje ku nekk gis koo gëjoon a gis sa xarit boo gëj a gis ngeen toog di waxtaan man ngeen a daje ci benn barab da ngeen fa nekk ba guddi ga jeex kenn ci yéen ñaar dundal li tax a jox guddi gi xelam du ci dem waaye da ngeen di bokk yéen ñaar ñëpp di waxtaan ci yeneen di bég ci yeneen nekk ci yeneen ak yeneen ak yeneen même bu doonut yu xaraam sax mën naa doon yi dagan waaye ci yeneen ngeen nekk yoo xam ne ngeen leen fi dajale woon mooy li sëñ Cheikh Abdou daan wax ci mbirum màggal gi ñu génn di wax ne màggal ak màggal si bokkut nit dana màggal si te màggalut nit dana màggal màggal si wut gàmm itam looloo ci am maanaam gàmm ak gàmm si bokkut nit dana jógee dëkk sàngam ñëw Touba wala beneen dëkk gàmm ji te gàmm ndax guddi gépp lekk ak naan la ko fanaane ak nekk ci lu ko neex maanaam du teewlu li ñu war a teewlu ci gàmm du ko teewlu te nag mbóot yi nga xam ne moom la ñuy wax ci ku dundal gàmmu lam la ca lam lay jar lam lay jariñ ci Sëriñ Tuubaa wax ci lu bari ci Jazbul Quluub mm-hmm. mbóot yooyu ku dundalul gàmmu doo ci bokk loolu lu taxam la teewe gi kese kese taxut nit ka am ko faw aja teewe ko ak dundal ko dundal gi nag xol bi moo ci jiitu kon la ca jiitu ci jëf ji mooy baril jàngal alxuraan ci guddi googu baril tudd yàlla yeneen ñu man yëpp rawatina lu mel ne julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak lu ni ne waxtaani diine yi ñuy def ci kaw nag muy waxtaani diine yu mel na war a mel ndax guddi gàmm moom la ca gën a yàlla mooy bu ñuy waxtaan nañu waxtaani yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy li ci gën a yàlla fàttaliwaat nit ñi melokaanam ak jikkoom ak dayoom ci boromam war gi ñu ko war a topp ak wor gi ñu ko war a roy loolu mooy di ci jiitu euh, ak xasida yi nga xamante ne sëñ bi da koo def muy wax ci gàmmu lu mel ne jisbul xulub wala yi nga xam day wax ci salaatu ala nabi ak yu mel noonu ak daal euh, yi ñu ciy teg nag ci xeeti berndeek xéewal ak yooyu ba tey mën na sa caa teg loolu lu baax a baax la lu ci am njëriñ la ndax nit ñi euh, aw ñam itam daa bari tuyaaba dafa am tuyaaba lool waaye li ñu war a moytu rek mooy favoriser ko ba mujj fàtte la ko waroon jiitu loolu la ñu a bàyyi xel loolu moom ndax dañoo war a xam ne Euh, bernde yi taxul ñu daje jaamu yàlla moo tax ñu daje. ndax bernde am na fu nekk waaye mën na jóge ok bernde yi dañ ko war a li ko tax a jóg bu dee moo ko tax moom lañ ko defee nga xam ne mooy cosaan li tax ñu baax ñu daan ko def mooy dañ koy waajal ngir bu nit ñi ñëwee ba def li ñu def ba noppi wala def li ñu def ba ca digg mm-hmm. ñu jox leen bernde yi ñu ñu xéewlu amaatuk ca war wóyaat ca lañ nekkoon ba guddi a jeex waaye doonul ne dañuy ñëw pour daje lekk ak naan rek parce bu dee loolu lekk naan noos bu ñu nekkee tasaaroo dem. loolu mën na nekk. xanaa ndax mënees na ci dégg ne comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu ko laajoon lu tax nga koy woor mu ne ci laa gën a ndax dundal guddi googu bokk na ci waras na cee woor bis bi yëpp. bu baax ndax euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa saxoo woon woor altine ak alxamis. wax li waral mu di ko def. bii mu ne ci la feeñ muy altine ji alxamis dina ndax mooy bis bi nga xam ne ci la suñu borom di gaaral jëf yi ci la ñuy gaaral jëf yi suñu borom jëf yi jaam ñi ci ay bis gépp mm. kon danga ci dégg ne kon ba tey euh, euh, mën naa ne bisu gàmmu bëccëg gi nit war ko guddi moom du mën a nekk ndax guddi moom des ko war waaye bëccëg gi waaye bu boobaa nag bu dee boobaa nag xam nga ndax ñun ñun ci ñaare barab yi ñu gàmmoo yëpp li ma gën a miin ñu di ko def maanaam buñ ne woon tay lan tay la euh, tay la dibeer buñ ne woon tay la gi maanaam bëccëgub tey bii lañuy ñuy yandoo daje bu guddee dëgg la guddi gi ñu jëm nag di guddi altine mooy guddi gàmmu gi moom maanaam nga xam ne kuy gàmm moom guddi googu ngay màggal waaye bisu gàmm du bisu tey bisu suba la waaw maanaam bu ñu fanaanee gàmm bu bët set bis boobu mooy bisu gàmm waaye bis bi ko jiitu kon boobaa kuy wor man ngaa fanaanee gàmm bu bët set bis boobee di bisu gàmm nga nga nga nga nga yendoo ko wor moo tax bis boobee bis bu mat a bàyyi xel la ndax ñu ni léeg dañuy jël guddi gi rek jox ko ba bàyyi bàyyi bëccëg gi te bu ñu fàtte ne yonent bi alayhi salaam ci waxtu wi fajar di fenk ci li gën a wér la ñu wax ne ci la feeñal àdduna ci la feeñal kon mooy day mel ne ci diggante guddi gaag euh, bëccëg ga ca la feeñ loolu ay mandarga yu bari feeñ na ci maanaam doon waxtu fajar fajar li muy firi doon gum dana doon lu lu biddiw bu wala jant bu ne fang ci àdduna ba ñëpp gis ko te loolu mooy lii ñuy dund tey fam gane àdduna ak fii ñu ne li muy sori sori ñëw na ba ak njubam ak leeram yegg si fi ba ñun yi ñëpp ci lañ judd ci la ñu dund mm. yàlla na yàlla gën a yàggal amiin Euh, kon bis boobu it mat naa bàyyi xel maanaam jàpp ma ne dañoo war a fanaane guddi gi buñ xëyee yendoo nelaw bëccëg gi rek ok waaw waaye bëccëg gi am na dayo bëccëg gu am dayoo la ndax fi ne buñ demee sax ci yenn réew yi jox yitte lu may noonu tax na ba weeru rabiul awal bépp guddi yëpp yëpp yëpp la ñu dundal waaw ah, am na ay murtani gii rek mm. waaw gis naa fa ñoo xam ne weeru rabiul awal gépp guddi gu jot buñ julee timis ba gee am na ay xasida yu ñu daje di ko jàng boobu ba weer yëpp jeex ngir jubloo dundal rek guddi gépp ndax guddi weer yëpp weer yonent bi alayhi salaatu salaam la macha allah jërëjëf sëñ Issa ci ni nga xamee ne <clears throat> noon nga leerale ni ñu war a dundalee guddi gi bañ koo jàppee aada waaye jàpp ko ay jaamu yàlla yoo xam ne dañ ko ciy def ngir gërëm gërëmloo wala def lu gërëm loo suñu borom wala lu suñu borom lu suñu borom gërëm te mooy alxuraan eh, sikar julli ci yonent bi sallallahu Euh, jàng ay xasida yi nga xam ne xasida tàgg la ak julli ci yonent bi ak ni ki noonu it def ay bernde te bañ koo def mu nekk luy priorité euh, am na solo loolu waaye euh, Sëriñ Isaa ku nekk xam na ne jullit ñi moom am nañu dëppoo ci ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën te ku ñu war a warmaal ku ñu war a màggal la ba tax ñuy màggal guddi gàmmu léegi njariñ lan lan njariñ moo nekk ci màggal guddi gàmmu ci réew mi ak bitim réew ak fépp maam njariñ jan njariñ lan la mën a jariñaat jullit ñi buñ ko màggalee defe nañ ko war defee lañ jaar lu ok jërëjëf sëñ xam naa mu baal bala ma yegg ci laaj boobu rek. Mhm. ma proposé ci. Mhm, ndax jàpp naa nit ñi léegi jamono toll na foofu di leen proposé programme baax na ci. Mhm. jàpp naa ne daal euh, ku bëgg a dundal guddi gàmmu ci anam gu simple. gu simple daal gën gaa néew ci lu lu jàppandi rek. man nga yow jullit bi koy seetaan wala murit bi. muy góor muy jigéen góor góorgóorlu ba julli julli gee ci mbooloo. julli gee googu ak timis ga sax boo ko ci manee boole moo gën. Hmm. julli julli timis julli gee ñaar yëpp ci mbooloo. Hmm. fajarit nga julli ko ci mbooloo. Hmm. maanaam nga jullee ko julli mbooloo. loolu mooy bokk na ca kon boo ko mënee fa ngay gàmmu mu doon barab boo xam ne mbooloo fay daje ñu gàmmu ndax gàmmu it buñ ko mën a defee fu mbooloo daje. te lu xaraam doo am lu naqar yàlla doo am. loolu mooy li gën. loolu moom naka jekk nit yàlla yi ñu baax ñëpp loolu dañ koy préciser di ko di di di ko di ko di ci soññee di ci insister. Mm-hmm. mooy loolu Sidi Hadj Malick doon wax ala azimu leelal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami odulu mm-hmm. ci kaw bu bu lu xaram amut lu xaram moom bu amee kenn ku nekk na toog këram gàmma ko fa te Sëñ Tuubaa sax da nga gis ci biir ay waxam ay mandarga teg tegtale loolu kon loolu lu mat a bàyyi xel la mm-hmm. mooy comme Sëñ Sëñ Fallu ci màggal Tuubaa bi mu koy xutba bi mu bind boo ca demee da ko ci gis bi muy wax ci mooy màggal gi mu njëkk a dajale taalibe yi da gis bi mu wax ci ñuy daje day wax waaye dèjà tudd loolu ne ci kaw bu fekkee ne mun kar doo am lu naqar yàlla doo am mm. ñuy ñuy daje di ko def loolu lu mat di bàyyi xel la ci lu mel noonu mm. léegi bu ko defee nga fexe ba julli timis julli gee julli fajar ci mbooloo boo noppee itam nga dolli ca jàng ca alxuraan sa kam kàttan loo man loolu nag nit ñi duñ tolloo luñ man mm-hmm. lu mel ne jësbul xuluub nga fexe ba jàng ko mm-hmm. boo ko mënee mm-hmm. teg ca lu mel ne muqaddimaat mm-hmm. lu mel ne mawlid muy barzan ji ndax moom it xasida la gu am euh, safla du xasida sax waaye téere la bu am barke ndax Sëriñ Tuubaa ci biir jës bu yooyu muy wax naan wa in ala shay'in quri mawlid xayrul bashari yooyu jàpp naa ne barzan ji lay junj jubluwul guddi gàmm waaye ab mawlid bi foofu ismu ayna la du ismu zaman maanaam mawlid bi la jubla wax ndax moom la daan daway mawlid lu mel noonu jàng ko mooy ci guddi gi la ca des nag lu la sa temps yi nga yor sa kurus sa sas sa bopp ne danaa def nangami salaatu ala nabi ci guddi gi loolu moom ku nekk ak sa tolluwaay la man bu dee koo xam daa war a xëy suba liggéey mën naa góorgóorlu ba def lii min wi balaa min wi wala nangam mu def lii lépp dem tëri bu xëyee dem dem ci liggéeyam ndax it nag waroo ne dama cay fanaan ba mu yóbbu la nga xëy suba tardé liggéeyu jàmbur yooyu loolu àq la te lislaam yeewu ko kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci bokk yi Euh, njariñ li nag bokk na ci rek ci àdduna sépp guddi gàmmu dana maye jullit yëpp fu ñu mën a nekk ci kaw suuf seen xel demaat ci yonent bi alayhi salaatu salaam maanaam ñu seen xel dajewaat ñoom ñëpp ci ki yàlla yónni woon ci ñoom maanaam loolu lu lu am am solo la maanaam ndax doomu aadama dafa baaxoo lum yàggal rek miin ko day mujj léeg-léeg xelam da koy faay léeg-léeg nag lu mel noonu kon da ciy baax maanaam ñu fàttalikuwaat ci fépp fépp ab jullit mën a nekk ci kaw suuf rawat na muy ku gëm ne gàmm lu jaadu la lu baax la ñu fàttali ko waat yonent bi aleyhi salaatu salaam xel demaat ci moom barab bu nekk itam ñu waxtaane waat fa mbiram ndax am na ay gox yooyu lañ fay waxtaane ni yonent bi aleyhi salaatu salaam mën naa am du bari lool mm-hmm. bu ko defee jullit ña fa ne xamaat ko mm-hmm. kii ñu topp kum doon mm-hmm. ak nan la meloon ak lu ko yàlla defal euh, loolu lu am am solo la lu ma a bàyyi xel la yeneen njariñ yi ci des nag moom bari na ci yoo bi jëmam wax na ci lu boppam lu bare bari ci biir Jazbul Xulub mhm. njariñ yooyu mu ci wax itam am na ci yoo xam ne ni mu doonee luy jariñ nit ki mhm. personnel bu bu ko defee noonu la mën a doon lu mën a laaw adduna sëpp mën a jariñ adduna sëpp itam mhm. euh, xam nga wax na ci biir Jazbul Xulub ne képp ku gàmm màggal guddi gën a adduna gi yonent bi alayhi salaam loolu jeexit la ci kon ci gàmmu ne ku ko ku ko ku ko màggal ëllëg suñu borom du ko xisaab loolu nag lu kawe la ndax ëllëg jafe-jafe bu fa nit di am xisaab ak ko yóbbee waaw <laughs> ah, te yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne woon man noo xisal xisaaba uddib mm-hmm. yàlla moom comme xisaab dëgg-dëgg xisaab ah. faw rek jafe-jafe am mm-hmm. kon luy tax ba nit ki bañ ñu bañ ko xisaab mm-hmm. loolu lu mat a waggar lu mat a bàyyi xel la waxoon na itam ne képp ku ko màggal dana mel ne ku tee woon badar dana mel ne ku tee woon xare badar ba noppi faatu ca boole ca maanaam am darajee teewe badar am darajee shahada te ñooña loolu dañ xam bu ñu ci duggee day guddal waaye lu yaatu la te xóot ndax shahada moom nit yàlla yëpp moom la ñu wut mm-hmm. moom la ñu ñaan yàlla moom la ñu wut mm-hmm. ndax loo xam ne boo ko xasee am yàlla dootu xool dara ca la nga la jàlloon lépp mm-hmm. lépp loo mas def ci njuum te yàlla da koy effacé lislaam réyal dara jàmm ba yegg ci ka faatu ci xare xareb lislaam shahid liñ tëral ci ñi ci des nga xam ne dañ leen di jullee ka sang ka sang ka def nangam kooku duñ ko def yére yam faatuwaale noonu lañ koy yëkkatee suule ko noonu ak dara jaag lépp loolu lu kawee kawe la loolu kon luy tax nit am dara jooja loolu woyofut nit ki war na ko waggal war na ko bàyyi xel mhm. ak yeneen ak yeneen mhm. xaj na ñu ñëw ci wala waa ah. xam naa dañ dañ ciy dugg rek mooy ci tomb bi tomb naan Serigne Touba nan naka la daan mhm. dundale gàmm xam naa du ñàkk bu ñu ci duggee du ni nga xamee nan nga koy junj ci jës bu nga mën cee gën a leeral baax baa ndax day yell gàmm dëgg la naam jullit ñëpp ko bokk sax ci àddina bi waaye murid yi ñu ngi koy màggal fu nekk ci euh, dëkk murid yi ak rawat na fi Touba kon dana yàlla saa su nekk rek ñu gën a xamaat Serigne Touba naka la ko daan defee ngir ñoom ñu mën koo defee ñu dëppoo ak noona ba man caa am ngërëm dëgg la bu wér tey sax Serigne Touba royukaayu jullit ñëpp la mm-hmm. ci ku ko xam mm-hmm. ku ko xamul nag mën nga ko féete la ay nit jàpp na ñoo ko moom wala ñoo ko mm-hmm. féete woo waaye ñun ñii dong taxuñ ko foon a ñëw suñ tubaab ñëpp ko fi taxoon a mm-hmm. ñun ñoo ko bëgg a moomale suñu bopp waaye ñun moomuñ mm-hmm. ñoo ñoo jullit ba ca Chine ak ba ca Afghanistan ñoo yem suñ tubaab ñu xaj na nag ñun la yàlla la féexale taw féexi xaj na ñu xam ko mm-hmm. nangul ko waaye ñëpp ko moom ci ku ko xam ñëpp ko war a jariñoo sëriñ bi ci li ñu nettali ca boo demee ca Minanul Baaxil Xadim ak ci nettali yi nga xam ne jëlee nañ ko ci ay nettali yu wér yuñ sukkandikoo ni mu doon gàmmoo gàmmoo gu rëy la ku teel a la ndax ahyaytu mawlidan nabi min associ la kon mooy moom loolu nag euh, assoc 1301 di war a tolloog ay 1883 jàpp 84 at moom la njëkk a gàmm maanaam la njëkk a gàmm mooy waxut ne ci la njëkk a dundal guddi gàmm ndax xam nañu at moom boobu la Sëriñ Tuubaa di toll ci fanweer atam ak benn Sëriñ Tuubaa ku xam diggam ak Yonent bi alayhi salaam du dund bay toll ci fanweer ak benn doog a gàmm waaye mooy gàmm gum gum présidé goo xam ne maanaam mooy kilifa gàmm gi ndax lu ko jiitu waajur ma fi nekk siñ Mor Anta Sali te la ñu sëñ la Lamin jóg nettali woon moom mi xamoon Sëriñ Tuubaa fekke ko mooy bi fi sëñ Mor di nekk moom diiru dundam sëñ bi mus sa yëngal dara maanaam nag léppam da ko bàyyi woon ak sëñ Mor mhm. mooy kilifa gi mooy def lu muy def mu topp ci gannaaw waaye du du jiite dara du def dara waaye nag gannaaw boobu la fi sëñ Mor jógee moo tax gàmm googu mooy gàmm gi nga xam ne moom la njëkk a moom la njëkk taxawu goo xam ne moom maanaam bu doon wax naan moom la njëkk gàmm day mel ne moom la jëkk gàmm ndax moom la njëkk doon kilifa gi dirigé gàmm gi saytu ko nit ñi ànd ak moom ok moo ca yilif daal yilifuñ ko ca waaye moom moo ca yilif mooy kilifa gàmm gi mm. loolu nag kon moo yàgg na lool 1883 te boobu ci fanweeri atam ak benn lay doog a dugg euh, noonu la gàmmoom doon réyee ba bi mu nekkee daarul man naan laata muy dem Mauritanie euh, ci archives yi gis nañ euh, rapport Omar Niang boobu nga xam ne ab ab ab agent secret la bu fi tubaab bi mu ñëw doon réju sëñ bi doon na nett li gàmm ko mbooloo mu bari mu fa daje woon nga xam ne moom gàmm gu xumbaay ba ëpp na bay bay lim sax ay nangami mbooloo ci ay daje nañ fi gàmm gi réy gi mu bari na lool ba jéggi dayo nga xam loolu bokk na ci li tiitaloon tubaab bi sax jàpp ne kon kii bay boo ñu gaaw jóg ci mbiram ndax buñ moytu nang ma nangam bi mu ñëwee njaareem nag daa moom bi ñëwee njaareem moom ba nga xam ne toog na ba dal yëf yi dal mag ñe kilifa yi ñu bari dañ daan jóge fañ nekk di ñëw di gàmmu si ci moom njaareem te yëmutoon ci Sénégal donc ba Mauritanie Sénégal gii xam nañ ñu bari ci mag ñi kilifa yi ñoo xam noonu lañ daan demee. di euh, déedéet bi mu nekk njaareem bi mu nekk ah, njaareem di ko di ko fekk njaareem di gàmmu jëg moom man mii am naa sama maam joo xam ne dañu nettal ne at mi mujj gàmmu jëg Sëñ Tuubaa njaareem téeméeri fas la àndal kon mooy mbooloo ma bari la mbooloo ndax fasu ne moom nit a ca war lu ne kenn nit a nga jël te de ñu bare bare damaa jàpp mën naa am ñu ko ëpp mbooloo sax ñu ñëw ñu ko ëppalee mbooloo te yëmutoon ci Sénégal waaye ba ci Mauritanie Cheikh euh, euh, ci waa xasan yu ni la bokk damaa teewloo tur yi xaj na dinaa fàttaliku léegi ci xasan yu ni la bokk euh, da daan jóge Mauritanie di gàmmoo si njaareem fekk si Tuubaa tur bi laa fàtte ci xasan yu ni la bokk fii na njabootam ba léegi sax ahlu cheikh lañ leen di wooyee damaa xamut laa fàtte mm-hmm. moom saa yu daan ñëw dañuy wax ne géttu gile géttu nag lay jiitale foofa ci Mauritanie jéggeeg ñoom dex gi ñëw njaareem jébal ko Sëñ Tuubaa moom gàmm gi ba gàmm gi jeex mu doog a delluwaat. <laughs> loolu kon mooy booba moom la gàmm gi doon doonoon gàmm goo xam ne yëmatul Sénégal waaye dañuy jógee bitim réew ca Mauritanie di ñëw di gàmm seeg moom. mbooloo mi di bari lool ni mu ko daan doxale nag mooy da koy def ay kuréel bu ñeggee ci guddi gàmm gi am kuréel boo xam ne ñoo jàng jës bu. am ñuy jàng euh, bu am ñuy jàng muqaddimaat am ñuy jàng barsen ji bu ko defee ñu di ko awante comme noonu ñu koy defee léegi rek ci Touba ci jumaa ju mag ji ak ba ci Masaalikul Jinaan génn euh, sëriñ bi ji moom di di jiiteel boppam yëf yi euh, du ñàkk ñeneen ñuy jàng ci yeneen wet waaye dañuy wax ne daana wax sëñ Masamba naan ko ci guddi googu nay saytu ñiy jàng kuñ fekk mu nekk ci barab di jàng daal ndax booba njaareem xam nga mbooloo mi dafa bari ba jig dayoo kuñ fekk ci barab muy jàng te kàddu ga neexut nañ ko wax muy riim bu ko nanguwut nañ ko bàcc bàccal loolu moom dégg naa si biir doomu ña nett la ko ba tey loolu lépp kon da lay wan rek daa yóbbu gàmm gi ni mu daan xumbe loolu lay wan ñu boole koo gi nag bernde yi itam nag loolu moom mooy li sëñ Basiir nett li xudur rasiyaat nga xam ne moom ay mbana yoo xam ne xeetu ñam yëpp nga ca xeeti naan yëpp a nga ca xeeti café yeeg ataaya ak lépp lu nit di jëfandikoo rek ci ñamu dagan des na ko fa gis ci guddi googu loolu lépp kon di firnde day tënkaat li sëñ bi waxoon ca xasiida ga jës bu loolu la pratiqué waat jëf jëf ko jëmmal ko loola kon doon loo xam ne doy na sëkk ci ñu xam gàmmoo yéen wu sëñ Tuubaa doon gàmmoo ci diggante jaamu yàlla ak berndeel jaamu yàlla yi lépp buñ ko boolee tënkuwaat ci sant suñu borom tabaaraka wa taala ci xéewalu feeñal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci guddi googu macha allah hmm. macha allah jërëjëf jërëjëf sëriñ Issa ci tombaam solo bi ni nga xamee ne noonu la sëriñ bi daan dundalee gàmm euh, daan ko dundalee ci fépp fu mu a nekk tàmbalee ko ci assasine ñu fi waajur mu jógee 1301 tombé rek 1883 ba léegi nii kon ay ati at ay téeméeri at sax lu tag ak lu tegal la daanaka xaw tuut ma jege ñaar téeméeri at euh, daan ko màggal kon lu mu yàgg lu mu yàgg lu mu yàgg am la ni ki noonu it ñi nga xamee ne ñoo ko waroon di ay taalibeem mu leen ko daan digal daan ko ànd ak ñoom daan ko def te yu dëppoo ak yu sunna si yonent bi saa sallam ndax taxsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati am na solo lool suñ mi murlaa mi ngi may signalé boobu ba léegi naa ma waxtu wi xaw naa euh, jeex moo tax waaye du ñàkk it signalé saa bala ñu yëkkati du nga jox ñu ay ay lenn ci ay bind yoo xam ne danañ ko mën a jëlee ci dundal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dundale ko ci na nga xam moo dëppoo ak sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni nga xamee ne noonu la ko Serigne Touba jàngalee ay bind yoo xam ne des na ko ci mën a jariñoowaat. waaw jërëjëf Serigne Cheikh loolu de xanaa rek Serigne bi xam nga daa wax ne tanzimuhu ci jazbu tanzimuhu bi sunnati yaqudna li jannati bi isdiyaadul minnati li muxlisil muazimi màggal guddi gi yonent bi alayhi salaam ci sunna si yonent bi alayhi salaam mooy defe ko ci sunna mooy li Sëñ Saliou doon wax ci benn déclaration ne waxut ne sunna la waaye dundale ko ci sunna la wax waxut ne sunna la waaye dafa wax ne dundale ko ci sunna tanzimuhu bi sunnati mu ne loolu bu ñu ko defee dañuy may dugg àjjana ëllëg te day ay xéewal di ci yokkoo te loolu jàpp naa nag jamono ji nga xam ne nit ñi xéewal yi moom yitteel nañu lool kon bunta ngoogu bu mat a bu mat a bu mat a bàyyi xel waaye nag faaw ñu tënk ko bu dee yoonu sëñ bi dañuy jaar moom yoon wi dañ koy jaar rek ndax loolu la wax tanzimuhu bi sunnati la wax doo ko wax ne mooy jur lii dundale ko ci sunna mooy jur nga mën a am lii mooy jur àjjana mooy jur itam xéewal yokk kon bu ko nikki dundalee te dundale wu ko ci sunna bu mu ca yaakaar àjjana bu mu ca yaakaar xéewal yokk ndax jaarut ci yoon wi ko wax maanaam mi ngi mel ne caabi jooyu dugal ci buntu rek te du caabeem du ubbi da ngay da yàq bunt waaye du ubbi mu tëjewaat ko lu amaat solo li muxlisin muazimi faw itam boo ko dundalee ci sunna yi day aajowoo nga sellal ko yàlla doog koo nangu bala ci juddoo doog ca mën a juddoo kon faw ñu delluwaat ci fàttali ko daal xam ne xew-xew yii xew-xew yi diine la maanaam du xew-xew yi àdduna loolu lu mat a lu mat a sóoraale la maanaam buñ dem mukk ba àdduna ak fi toll jamono toll fab bi ñu ba lu ñuy jëfati ci xew-xew yi diine dañu mujj def koy fi àdduna li ma gën a seetlu mooy léegi suñ xew-xew yi diine yëpp te yëpp nag kor yi tëbaski euh, gàmmo màggal bu dee ci ñun murid yi ak bu dee ci ñeneen sax ndax li may wax concerné wut ay murid kese jullit ñëpp laay wax yëmut ci Sénégal dong sax itam daanaka àdduna sépp la maanaam mais ñun dañ cee raw ñun dañ cee raw waa dañ cee gën a fés maanaam suñ xew-xewi diine yëpp boo xoolee li laal affaire folklore ak mbirum àdduna la ñuy gën a favoriser ba ci correct Tabaski ki daf lu màgg la loo xam ne lu rëy la ci nit ki waroon di bàyyi xel di ko ci setantal waaye bu ñëwee suñu yitte yëpp mooy sama xotti baag tiisub mel na lay xotteeg mel na nii mel na naa ak kër gi ni togg gi suñ xel day génn ci xew-xew ya xewoon ba waral tabaski am suñ xel day génn ci korite liñ génn ba yàlla may ñu tey bis bii di feet ci ñun tey yëg-yëg bi ñu bu dee màggal suñ xel day génn ci bisub tey bii lan moo ci xewoon ba tax ñu di ñu ko fàttaliku lool gàmmu même noonu loolu nag lu ma ta bàyyi xel la ndax loolu lépp ñaara koy waral rek muy seytaane ak bakkan seytaane ak bakkan moom ñaar lañ ñoo xam ne suñuy noonu lañ te duñ tàggoog ñoom te euh, li feeg nërmeeluñ ñu rek liñ bëgg ñu duñ ko am te nag lépp luy posé buñ mën a jaar pour nërmeel ñu daañu ko jëm moo tax faw dana baax ñuy fàttalikuwaat suñu bopp ba yu mel nii buñ ko jubee ñu jéem a tënkaat suñu bopp suñ kem kàttan ba bu ëllëgee bu ñu delluwaat ci yeneen itam waaye ci bis boobu ñu mën ko bàyyi xel suñ Saliou doon wax ne dara jërut guddi gàmm nga yamale ko guddi ga ko jiitu wala ga ca tege loolu dara dara dara jëru loolu nag Euh, ku bëgg a jariñoo faaw nga bàyyi xel ndax ndax jotatul yéen borom xam-xam yi xam ni ngi leen di diglu euh, su lu mel ni jub seetee lu mel ni màggal wala gàmm ak yu mel noonu daante sax doonte naam mi ngi am mi ngi am waaye ndax anam gi muy amee bokk daa tax mu yaatu anam di fàttaliwaat nit ñi ni ñu war a dundalee yëf yi dëgg dëgg dëgg dëgg bañ koo def ay folklore dañ koo def ay daje ay lekk ay naan donte yooyu am na solo lekk ak naan waaye ni ñu koy defee yooyu a jéggi ak puugarante gu ci am ndax ñu mel boo xam ne bis bu ñu waxee rek nii nii lañ ko gàmmu dana egg fi mu war a egg yëpp ndax it léeg-léeg yaa ngi ko junj léegi sëñ Ahmadou maanaam jataay boobu mu doon def am na ñu ko seetaan waaye eggul fa mu war a egg yëpp ba ñëpp mën a bàyyi xel ne nii la ñu gàmmu ba màggalee màggal wala nii la defee gàmmu ndax léegi kon nag mu am ñoo xamee ne dañ koy dañ loolu rek koy tax a jug ni ñuy defar defaree yëf yi ba mu jàkk ba mu dëppoo ak ñi nga xamee ne noonu la war a amee ngir ñi mën ci waaye ndax ñi daa mel ni ba ñu ñoo xam te it am na ci ñu dëgëruñ bopp waaye dañoo xamut ndax jotut ñu lu mel noonu di am suñu Isa ah, ok xam naa ñoom borom xam-xam yi waaw man moom bokkuma jox dëgg yàlla waaye ñoom euh, gis naa ne sax ne ñoom borom xam-xam yooyu ngay wax euh, wax dëgg yàlla ñu ngi ciy góorgóorlu seen kami kàttan xaj na ndax bari na looy gis buñ jubee xew yu mel noonu ñu bari di di di waxtaan di fàttali euh, loolu moom mooy seen warugar dañ ko war di def dara wur leen ko tax a baax lu mën a xew teewut it ba tey nit ñi am na ci nag mbooloo moo xam ne mbooloo mu bare bari sax moo xam ne moom ña góor góorlu bu baax ca lañ war a def mm. ña ngay jéem a xam fi war a teg seen tànk te di ko fa jéem a tegit nag kenn du leen ko tax teggi ba ci gàmmu mm-hmm. léegi maa ngi junj fii ci Touba mm-hmm. tuubaa du du Touba rek sax waaye ci xadaraati yoonu murid wépp mm-hmm. daaru Muxti daaru Salaam fu ne maanaam. loolu sax euh, ñooñu daa mel na ñoom seen gàmm yëmaluñ ko ci weeru la. ay chaque altine ñoom ah, dañ koy def. Mm. altine bu jot dañ koy def ci semaine bi. dañoo dundal guddik euh, altine googu. Mm. Euh, waaye ci xadaraat yoonu murid bi fu ne moom da nga yëg ne saa yu gàmmu jàllee boo seetaanee xew-xew yi da ko ci da ko ci seetlu. Mm. gàmmu yu sell yoo xam ne yéeme na. barab yoo xam ne nit ñi dañuy fanaanee daje ba bët set wecc toog ñëpp ci suuf la ñu bokk toog kilifa nga koy jiite ñëpp bokk toog suuf jàng alxuraan jàng xasida lu ñuy joxe ci bernde dañu fekk ni ñu fi ñu toog leen ko jox kenn du jóg kenn du def ay mboox ak yi ay coow ak yu mel noonu du am waaye nag ànd ak loolu lépp du tee ba tey am na ñoo xam ne ba tey ña nga ca dox yi ñu njëkk yi ba tey hmm. léegi nag bu ñuy wax ñoo ñaa tax ñuy wax ak it euh, cekkeen yenn yi rax ci yëf yi nga xam ne mën nañoo dem ba ci barab yu mel noonu ñuy dundal mag gàmm gu dundal ñu sell waaye du tee hmm. léeg-léeg seen bakkan moo leen di gën a jiital hmm. topp fa xéewal yi nekk ak yu noonu léeg-léeg bu ñuy wax ñooñaa tax ñuy wax moom ngir ñu bàyyi xel ne ñooñee tam ñoom ñu ne yam maanaam lii dañ cee war a jéem góor góorgóorlu seen seen kam ci jéem fexe nag ba xam ne bakkan moom dëgg la moom ñu ne ànd waaye itam nag sunum noonu la mm. te buñ moytuwul dañuy lor waaye duñu jariñ mm. ñu fexe ba occasion yu mel nii daal bu amee ñu jéem a tënk suñu bopp suñu kenn kattan ba jariñ ci te bañ cee loro fexe daal ba guddi gi bañ a neem loolu daal lu ci ama am solo la mm. lu ci ama am solo la li ci li ci am solo nag mooy defe ko ci nu gërëm loo sellal ko te yàlla tax lum néew néew donte ne diiru fukki minute la nit ki toog def ca lam cee def te sellal ko te yàlla tax ndax loolaay la man saxit na ko def ndax fi ne am na koo xam ne guddi gàmmu guddi lalu hôpital la ko fekk waaye kooku sax bu mu tax mu jàpp nag guddi gàmmu moom mënu koo dundal ndax da ko fekk ci lalu hôpital déedéet foofa mu nekk lu man rek na ko def bu doon def fukki salaatu ala nabi sax te jublu si dundal gàmmu gi sellal ko te tax mën na caa am loo xam ne nit fanaan na ci gàmmu bët set mhm. kon mooy bu ci nit xeeb dara ci boppam lu man mhm. waaye li ci am solo mooy defee ko nu ko sunna gërëm looye te sellal ko te yàlla tax loolu ci am solo macha allah jërëjëf kon daal mën na jàpp ne daal ngir am yoolu wala yaakaar yoolu dundal guddi gàmm bi mooy defe ko nu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu alayhi te sellal ko ndax ñaar yooyu rek mooy li nga xam ne mooy jariñ jullit bi ci bépp jaamu yàlla goo xam ne gépp jaamu yàlla goo xam ne mi ngi koy mi ngi koy def ak gumu man di doon sëñ Issa daanaka waxtu wi jeex na tàkk ndax suñu murlaa mi ngi ñuy signalé boobu ba léegi te it mel na ni mi ngi taxawoon ci yeneen yëngu eh, daanaka dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo ak nga xam ne ñoom lay seetaan di la sant it ñun bu baax baax di la gërëm ci yi ngeen xam ne dagg ngeen ko ngir wuy si woote bi nga xamee ne jëmmi yàlla rek tax ngeen si ko ñu ngi leen ci sant bu baax xanaa ngeen tàggatoo ñi leen seetaan jërëjëf sëñ Cheikh di sant bu baax rek di gërëm hmm. di ñaan suñu borom boole ñu taxaw bañ yegg ci bis booba te buñ ci yeggee itam def ko nañ ko bëggee te day cee ngërëmam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Issa doon nañ gën a bëgg mu yaatu lool waaye lu jugu jeexul jugu fa te it eh, ndegam suñu borom danañu defal taw féex rek danañ ko danañ ko gën a yaatal baax lu mel ni jës bul xulóob jar na jàngat toog jàngat ko li ñuy wax diraasa wala taxlil ko ngir mu gën a egg ci noppi nit ñi gën leen a jege bu baax a baax wax ba ngeen a xam lan mooy yoon kan kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a xam lan mooy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci caméra bi Serigne Bada euh, xuma euh, Prince ak euh, suñu Mourtala Fall Rafaay directeur di sant bu baax a baax Serigne Ahmadou Mbacké Darou Mokhti moom it da am taxawaay yu am solo ci yu mel nii màggal ak gàmm yi nga xam ne yéen yéen bokk waar yi waaye ñu ne dañ ko sant suñu sant bopp ndax weer yi ñu takk wax dëgg yàlla moo ñu ko jox te it sagal ñu la ak bëgg ñu barkeelu ci moom rek moo ko moo ko tax a jug sëñ Saliou Mbacké jaaxal moom it Eh, baax ñu montre bi eh, ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax eh, di leen ñaanal suñu borom mu fay leen aw aw yiw di leen jox dig daje di ñaan suñu borom it ñu egg ci guddi gàmmu màggale ko nañ ko war a màggale defe ko nañ ko war a defe te dëppoo ca ak njàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak na ko Serigne Touba doon defee te am ca yool ba yiw wa yàgg koo taxawee ci yeneen jataay ci yeneen émission fii ci Rafah ci yoonu gàmm wala ci wattaayu gàmm incha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mawliduhu muasamu mubaarakun muhtaramu taasimuhu yanatimu ala sawi taqaddumi taasimuhu bisunnati yaquuduna liljannati biizdiyaadul minnati li muxlisin muasimi